salaamaaleykum salaamaaleykum axlul làmb ah namoon ngeen ma mais maa leen raw maa leen raw dañoo xawoon a jàpp mais te dañuy génne spécial rek pour Ada Fass damay waxaat saa su ne sama gars bàyyi leen Ada bàyyi leen Ada bàyyi leen Ada Fass bàyyi leen Ada Fass lii laay war a suul yi Ada yaa nekk ci dëgg waaw Ada yaa nekk ci dëgg Ada génnal xeexal raagal waaye xoolal naanal say vodka laal say pion aada yaa nekk ci dëgg waaw comme sénégalais yi ñoom duñ comprendre wala sénégalais yi ñoom mënuñu lire aada yaa nekk ci dëgg waaw aada yaa nekk ci dëgg ginnaaw sénégalais yi yéen mënoo leen lire yéen daal ala kulli alin par la force da ngeen a war a conseiller aada face quoi par la force yéen dafa am loo xam ne da ngeen koo comprendre dafa am benn proverbe bu naan une merde restera toujours une merde aada face c'est une merde ay moromu baayam ñoo fi nekkoon topp ci xale yi jigéen ñi topp ci sàngara si di yéeg ko wàcc seen carrière ngi noonu ñoom ñëpp ñoo doon rêvé roi des arènes fu ñu toll tey jii tàllal loxo ñaan topp ci ginnaaw ñoom Aziz Ndiaye ah topp ci ginnaaw ay ñoom mbay mbay njawaay ay ñoom ñoom ñoom kiw ministres yeeg députés yi ay moromu baayam ñoo fi ne nee naa leen kiwul du tëb doom ja bëtt aada fas faas la dëkk kiwul du tëb doom ja bëtt day fekk nga doon vraiment xoolal champion ci sa xel mais Fass dañoo mos am roi des arènes Fass mos ñoo am roi des arènes bi man xamul tax yéen gars yi ngeen wékk Ada Fass roi des arènes bi rek lan moo tax ngeen wékk Ada Fass des arènes bi man loolu jaxal na ma ko kéwél du tëb dëm jëbët Fass mosul am champion mosul am roi des arènes mais ñoom Serigne Ndiaye fa fane ak Gris bu ko weesoo Fass moo am roi des ma maa ngi jégalu léegi nag Ada Fass moo ne ci dëgg gis nga. une merde na change jamais une merde restera la merde Ada Fass attire des ennuis il restera dans ces ennuis là loolu lay wax ji léegi jërëtul ngeen koy conseiller une merde reste toujours la merde Ada du nit koy conseiller de toute façon man du ma bett man wax naa leen ko fi barki démb dafa am boo yoo xam ne ci làmb ji jarul nga leen di programmer boo leen programmer yaa ngi yàqal sa bopp jëru ko Ada Fass daa jëra dóor sa doom <laughs> su waa ji bàyyi ko baadoola bu yorul dara xëy commencé laali million bopp bi commencé neewi muy tàkk ay tàkkam di suusay suusam di génn di xeex mel ni ku dof gars yi naan dañ ko liggéey kenn liggéeyu ko li yor moo ko jomm loolu kese la kenn liggéeyu ko kenn defu ko dara li yor moo ko jomm kon sénégalais yi bàyyi leen di conseiller Ada Fass encouragé leen ko xam ne Fass musul am roi des arènes leen ko ne xam ne Fass dañoo yàgg am tur ci làmb waaye ubbuñu làmb tëjuñu mbappat looluy dëgg bi bu weesoo Serigne Ndiaye <laughs> bu weesoo Serigne Ndiaye laa lay wax de barki Serigne Touba Fass moom maa ngi jégalu quoi <laughs> Fass moom maa ngi jégalu <laughs> waaye waane ko sax cent millions di non bu weesoo Serigne Ndiaye daal nee naa leen kéwél du tëb doom ja bët loolu baatu wolof la wax naa leen ko waaw ay ñoom zàlloo fa lañ jaar faas lañ jaar ay rog mbalax yaayo faas lañ jaar faas yow fas lañ jaar fas gi moom mënul jàkk fekk fas moo mel noonu ne war naa leen fi garderie doo faa la gëmoo leen seetaan leen bàyyi leen ma ay <laughs> leen ma dañoo woote dëgg te bàyyi suñ caaxaan yi Ada Fass restera une merde c'est ça la réalité <laughs> c'est une merde même bu ngeen ko bëggee jafal-jafal sax rafet rafetal ko booy bi il est perdu sa tête loolu lay wax bu ngeen jógee taxaw fii ñuy eh, këcc naan eh, aada pourtant champion la lii la may yaa war a bëre ay Lac de Guiers man maa gis Lac de Guiers tamit génn Lac de Guiers génn di jéem a wax gouvernement bi naan gouvernement bi da ngeen war a xam ne booy dañoo war a am liggéey moo tax ñu ngi jël mbëkk gi yow yow Lac de Guiers yow barki dem nga fi dóor booy <laughs> parce que yow Lac barki nga dóor booy <laughs> yow war génn di kaatal booy <laughs> Sénégal gaa yaa ngi nekk foofu ñii lekkuñu naanuñu xiif mar rafle yow nga dóor booy yi ñu jël la génneel la xaw ma ñaata million te am na ñoo xam ne ñu ngi tëdd ci lalu hôpital yi mënuñoo jug am na ñoo xam ne seen tànk daa damm ci làmb ji mënuñoo jug mënuñoo def dara kenn du leen ketal joxal leen pour ñu am luñ suturloo mais yow mi dóor booy ay million ñu génne la ci ay million nga yor micro naan non gouvernement bi da ngeen a war a <laughs> da ngeen a war a <laughs> mais lak da ngaa réew nag lak da ngaa réew woon <laughs> yow lak da ngaa yemaate non namoon naa Bakary nag damaa namoon Bakary Bakary daa yéex da gëj a génn damaa namoon Bakary non tay damaa jàppoon nag damaa woon a jàpp waaye nag changé wu ma de maa ngi fi maa ngi nii xam naa ne am nañu kontaan woon xam nga bombu seeni bëñ naan ñëw ñëw maa ngi fi maa ngi fi de maa ngi di dar daluma waaw ne ci business yi rek mooy loolu ma lakk ay comédien la quoi pour <laughs> la gueule du monde quoi <laughs> ah bu jaaxe jaaxee naa ngi xool nag gars yi wax Aziz Ndiaye waaw naan Aziz Ndiaye a ah, boo xoolee gàmmu gi da doon da doon puukare gis ngeen yéen bàyyi leen xool bu bon kum ci sañoon sa baay <laughs> yeewi nag woo say tantaki say nijaay xaritam ak am jàmm di bëgg ci suuru gàmm Muhammadu Rasulullah daa bëggoon boppam kon gàmm kum neex nga sangu solu changé juróomi yoon ci journée bi ndax Mouhamadou Rasulullah daa bëggoon boppam ci jëmm nii ci yaram ci ay cheveux da ko daan defal ba baax di sol lu rafet kooku Rasulullah moo ko woote di di guddi gi rënd gi la. innaa anzalnaahu fii laylatul qadr <laughs> laylatul qadr ah lu geex naa jeexal ne wax loolu ko tanazzalul malaa'ikatu war-ruuh fiihaa bismi rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hattaa matla'il fajr <laughs> waaye loolu daa jeexal na ay bëggante ne guddi yërënt bi kay comme neex sangu solu seetu waaye ñi nga xam ne yoruñu seen xol yaa ngi bon noo def ñu trouvé sikk-sikk gars yi xoola jël leen seen xéerug muñ naanee ko ndox mu sedd ngeen bàyyi seen caaxaan yi naa ngi jégalu ah bu loolu jàllee bu loolu jàllee ñu ngi leen siyaar encore di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax naa leen temps bi may daw temps bi dafa gaaw xam naa ne namoon ngeen ma nag waaye maa leen raw maa leen raw maa leen raw de waaw ay ay laktaaw naan jeunesse bi dafa sonn non gouvernement bi dañoo xam ne booy dañoo bëgg liggéey jeunesse bi dañoo sonn yow nga jàpp booy dóor nday booy yëpp <laughs> jàpp da ngaa am ful nday booy fëgg nday booy yëpp tax yi fule <laughs> te naan jeunesse bi dañoo sonn ah <laughs> non mais Sénégal dama sérieusement aada moom bu leen sax doom ndax aada de toute façon teewul tëb doom ju bët aada faas aada faas faas lay wuyoo ko faas jeex na ah man man man xam naa ne man daal <laughs> maa ngi jégalu ko ah boo xoolee ay booy ñoom la la gros yi lu tax seen carrière yàqu booy yooyu yëpp parce que xoolal repère bi la faas la. moo tax Serigne Ndiaye du yéex a génn lu tax parce que repère bi mu ne pour ñu wutal ko combat sax mu génn sax problème la pour ñu wutal ko combat ak ñi ko yor link yi ñu yor ci làmb yëpp mënuñoo utal Serigne Ndiaye combat y a un problème daa leen wax. de fois da yor sa jamaa di ko xoos mais bëggoo jamaa bi leer naññ ndax bu leeree da nga yaakaar nday dem bala fi quoi <laughs> ah fekk xam nga ne daa am loo ko jiwoon dañoo dëgg c'est réalité mais sama gars yi ñu ngi leen bëgg di leen char di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di leen wax na leen Bakary demul de maa man fi de ah euh, Mansour Ba Mansour Mansour gis naa la ngay tontu Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye yow gis naa la ngay déconné eh gars yi <laughs> fàttewu ma leen de maa ngi fi benn bu ne ak débaam benn bu ne ak kaam maa ngi ñëw Mansour maa ngi ñëw Aziz Ndiaye maa ngi ñëw pareegu ma ci yéen Abdoulaye Khat Diop Ndeye Ndiaye na ma waar <laughs> ñu ngi lay ziar sama doom ndey dama laa nam dama laa gëj a dégg Abdoulaye Khat Abdoulaye Khat dama ko nam dama ko gëj a dégg mais yaa ngi jàmm de ah ñu ngi lay ziar de ñu ngi lay bëgg de Abdoulaye Khat Diop waaw ñu ngi koy bëggee waaw na ñoom ñàmbe ndey seen namu naa leen ñoom it <laughs> ay waaye ñoom ñàmbe ndey seen ah ay ñoom biraa ndey seen ah la lay namu naa leen ci ngeen ne yéen ci jàmm ñu ngi leen di bëgg de waaw ak gaay gaay lu ma tëfi ñu ngi leen di siyaar yéen itam di leen bëggee bu baax <laughs> ku moom xarfe ngeen bàyyi buum ji kenn ku ne di ko jiñ sa morom dara dàqu ko <laughs> ma kii la ku kii la ku ne naan kii jëf ju rafet dafa baax maanaam jëf ju rafet dafa baax boo dee def lu rafet bu dara ne teel kenn du xalaat ne mën a kenn du xalaat ne kii kii lay waxal <laughs> kenn du xalaat ne kii kii lay waxal mais xoolal <laughs> maaqalla jëf jëf du bon gauche droite ñu ne lomo yéegaguñ ci tif gi sax kenn ku ne naan diwa diw jiw <laughs> diw diw ak diw kii la ko kii la kii la doo kii lay waxal tabar waxuma tur fan lay damarki sëriñ Tuubaa moo tax moo tax jëf ju rafet dafa baax fukki nit yu ànd ñu ne sàcc baa ngi kenn ku ne naan kii yee sàccoo yaa am ah moo tax nag le chien aboie la caravane passe ah donc la réalité moo nekk noonu pour wane leen ni seeni jikko ak seeni i biir ñàkk bëggante gi tax na du ngeen wóolante ñàkk bëggante gi tax na du ngeen waxante dëgg ci seen biir ah nit day def ay mbiram yaakaar na kenn xamu ko fekk ni nit ñi xam nañ ko léegi nag bu na teel rek lay wut morom ja te xam naa ne tolloo ngeen ci dimension boo xam ne nii ah bëggoon ngeen carrément ñu teg lépp ci taabal bi pour gars yi wax ko une semaine mu jeex déedéet déedéet teguñu lépp ci taabal bi gars yi wax ko une semaine mu jeex waaye kenn ku ne yaa ngi toog di xalaat ne ba tey am na lu am mais mais am na lu am ba tey nag am na lu am <laughs> boobu lu wax moom <laughs> jëmul ci ginnaaw wax leen ko xam taa da ngeen maa gëj a dégg gars yi naan ma non xam nga waaw non ko ci kii man leen daf leen ndànk rek ah en attendant boobu ñun ñu ngi gérer ay suñuy diplôme de gauche à droite quoi ah mais sama gars yi ñu ngi leen di gérer ñoom Del Diawara ñoom Mansour Diak sama gars yi xaaral mu ñëw sax jox leen dédicace bu ngande waaw et eh, gars yi bind leen ci suuf rek bind leen ci suuf ma leen di dédicace ah waaw Godoom 98 Ada Sow ñu ngi koy béggee di ko ziar di ko jox wàcc waayam ah nee nag ci biir néegu Sénégal ya wala ci biir néegu États-Unis ba ci Samba CFA mais ba ci CFA yi doomu nday ñu ngi leen ziar ah Aziz Aziz ñu ngi koy ziar Aziz Diallo Aziz Diallo ñu ngi koy béggee sama gars yi bind leen ci suuf waaw black Black mi ngi regarder vidéo bi ñu ngi koy ziar moom it du ko jox wàccuwaayam ah sama gars yi ñu ngi leen di ziar dama leen namoon pour de vrai non dama leen namoon ah dama leen namoon ah Petit Dia 20 ñu ngi leen di ziar Petit Dia sama copain gars yi ñu ngi leen di ziar maa raw ci loo ne ah noonu Guèye ah di nuyu ah Momo l'officiel ah Ado Guèye ah gars yi ñu ngi leen di bëggee <laughs> ñu ngi leen di ziar <laughs> ah global global automobile <laughs> ñu ngi koy ziar yaam Ibrahima Sarr kooku sama nijaay la Moustapha sama gars yi dama leen namoon de mais xoola maa ngi ñëw ci Siteu Modou Lo gis naa ne gars yi ñu ngi koy jéem a caxat-caxatee di rey Siteu Modou Lo bi mais dama leen ne Bakary su waxul ci làmb làmb dee na temps bi ma toog waxuma ko maa ko def exprès seetaan gars yi lan la ñuy live gars yi ci sama live la ñuy jël di ko liveaat pour am ci lu ñu war a mën a wax ndax nee naa la bunt yi ñu ragal a toj yëpp maa koy toj yoo pare ñoom ñu am lu mën a wax su ma live seen live xoola mooy loolu ndox ma la jëm xool leen view yi dama ngeen xool view yi jàmbaar paxeer yi xool paxeer mooy mooy dëmbere naan sama vodka takk sa muy daw <laughs> man am naa droit wax naan sa vodka takk sa sim muy daw ndax mën naa ko yor naa ko te xam naa nuñ koy defee yaa ngi comprendre léegi yéen ñu nekk Sénégal xiif mar ak rafle leen rey ngeen bëgg naan seen vodka takk seen sim muy daw c'est un gros problème mënoo leen koo def Aziz Diallo ah Cope 20 Pokola non Pokola du ma wax ci moom Pokola du ma wax ci moom ndax Pokola bu waree bu xoolee yaay ji da koo war a yërëm Pokola bu xoolee yaay ji da koo war a yërëm bu meeri ko ñëpp génne yay Pokola génn Pokola dafa war a xalaat yaayam lan la reyantee ba Pokola tollu fii Pokola bi mu juddoo yàggut Pokola na xool ndayam ci ay nijaayam ay ñoom Ama Balde Pokola man booy la boo xam ne dama koo naw dama koo fonk torop mais Pokola am na yoo xam ne bugguma sax dégg ci pokolaa moo tax man bugguma cee sax wax parce que booy bi incha allah danaa ko dégg dinaa am lu ma ko wax te dinaa wax ak moom lu leer. Ama Balde mi may dégg bu baax Ama waxal ak sa booy bi ndax Pokola boo ma dugalee ci genre face à face maa yow du la neex dama la koy wax léegi te yow booy ñun yàlla dafa def suñ bopp xamoo ñu de mais ñun ñoo la bëggal suñ bopp lu tax parce que der gi nekk ci yow gaynde gi nekk ci yow waaw nag der gaynde gi ci biir géew gi la. poxolaa mbedd mi nii doo fa lenn dama la koy waxaat léegi peut-être sa koñ mais boo génnoon nii nii ni dugg ci Europe bi nii xoola doo yëngal patt ngay def parce que Serigne Touba leer naa gën a tëj ñoo la nekk ci àll mais bu ngeen nekkee ci koñ bi yaakaar na yéen yéen a gën a tëj nit ñi yéen a ngi nax seen bopp fii li sañ sañoo leen ko mais gars yi xool ay diplomate xool ay ay diplomate lañ gars yi dañoo intelligent seen intelligence la ñuy utiliser pour mu gindil leen xaalis yokku leen ci seen avenir mais pas boo xam ne ni kaso ngay mujjee kon poko xalaatal sa yaay lim lim lim lim lim daj xalaatal sa mère lim daj sa néegu kër baay ngir yàlla xalaatal loolu poko poko xam naa ne am na fooy toll mën nga am ko tu dërkiis nii sax d'accord ma comprendre la ko poko mais poko tey jii yow mënoo am combat bientôt poko tamit ngay nekk ci yu ndaw yii quoi bu dee aada mis nañ ko aada c'est une merde il restera une merde that's loolu kese du leneen aada aada bu daj ci saago xaalis la bopp bi naaw mais nag comme lu may wax teewul du tëb doom de bët faasa ngi noonu ana roi des arènes faas daa am bàyyi ma mu sonal aada daa topp ay nijaayam <laughs> ñu jaaroon faas ay <laughs> nijaay jaar faas <laughs> buñ paree après tàllal loxo fu ne aada aada fa ngay mujjee foofu ngay munoo am ñu mel ne ay ñoom Serigne Mor nekk sa ginnaaw di la ñaanal yow nga war a yokk jom yokk fu la yàqu fayda ah mu am loo xam ne soo ko war a jom ci Serigne Mor mi lay ñaanal nga war a am jom sax moytu xool Omar euh, Momar mi nekk ci sa ginnaaw Momar Momar mi nekk ci sa ginnaaw di rayante suba ngoon ngir yaw nga war a am jom xool foofu sa paawu coach boobu noonu di wax nga war a am jom di ko xool waaw la la ñàkk jom da c'est une merde une merde restera une merde man je te le dis loolooy wax ji waaw mooy loolu dëgg yàlla waaw man nag man moom comme li may wax rek man daal mën ngaa band band lu mais na lay jariñ waaye band band lu goo xam ne jariñoo la dara kaso ngay mujjee kaso mooy loolu. yéen boo yaa ngi nekk senegal booy amuñu luñ lekk amuñu luñ naan bu ngeen amee làmbu ñu dagg ndey biyee ñëw fekk fekk si leen bu ñibbee seen kër fanaan ci suuf gi yéen ngeen nekk ay millions di laal ay million ba pare bëgg génn bëgg a jaay reewana ndey ci kaw sénégalais yi fu ngeen ko teg. yéen yërëm leen booy yi leen booy yi leen supporté booy yi ànd ak yéen du leen yërëm yërëm leen booy yooyu ah du ngeen ci booy ñaa du ngeen xool ci Modou Lo du ngeen xool ci Balla Gaye du ngeen xool ci keneen ak keneen vous êtes sérieux là am leen jàmm ñu ngi leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di leen bëgge namoon ngeen ma mais maa raw daa jëfate